dañuy ubbi jotaay bi ak alxuraanul karim ngir ne yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom alxuraan moom mooy muxdisaatam bi gën a màgg ndax alxuraanul karim ëpp na six mille aaya yu si nekk ñetti aaya yu nekk rek nekk na muxdisaat ñeel yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moom mooy karaama bàyyi radiallahu taala ko dafay jàngale di wax ne yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem yonent bu ñu defee xar baax muxdisaat lañ koy woowee waaye góor yàlla yi ñoom seen xar baax ñu ngi koy woowee karaama lépp nag loo xam ne nekk na muxdisaat ñeel ab yonent rek dafay nekk karaama ñeel yone ñeel ñeel wàlliw bi bàyyi radiallahu taala ko bi mu ñëwee mu gis na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kawteefam bi gën a mag muxdisaatam bu gën a mag mooy alxuraanul karim Baay Ñas ñëwit ne man sama karaama dara lu may alxuraanul karim فالتجا على حفظ كتابك الكريم كرامتي الى لقاء العظيم شوخي وخبي فيك الله يسفيه سوى خل وتخالفيه كون خوس سكو جيتي طالب دا فاي راي سي سيرنم سيدي برهام كون دي نيو سيد موسى سواني مو جانغال ني لن سي اي ايات القران ابر ني ويي البروغرام ان شاء الله ان فتحنا لك فتح فَتْحًا مُّبِينًا ليغفر لك الله ما تقدم ليغفر

Me. Well, لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى لك عاد وأما بالنعمة ربك فحدث الله أكبر waaye wax ak gàmmu dafa am luñ ciy jàngatee boo gisee ñuy tant tant yu melni nii dagg suñ yitte ñëw fi dañ cee bëgg a defaroo dañoo bëgg a jóge ci suñ mbon gi dem ci station beneen mooy bu baax bi jamono bi àdduna bi yëpp a ngi gàmmu waaye ba tey mbon ngi gën a yokk pourtant ñu ngi ñu ngi julli ci yonent bi ñu koy ñu koy di wax di ko bàkk di kañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ba tey ñu ngi gën a bon mbir yu bon yi fi la gën a fi la gën a nekk bon gi léegi sax na bëttuñ ko te ba tey foo romb tànt ro am fa li ko waral mooy kañaan gi nekk suñ biir xol te mënaguñ koo fóot waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tase ak ay till ñu dindi lumbu deret lumbu seytaane bi ci moom yàllaa fa nekk yàlla bonul baaxul parce que soxlawul mbon soxlawul bax day jekki jekki defé no xamné ne ba nga ni ki da bon mom yalla waye mbon avant mbon di ñew ak bax yalla kofek. la ko fekk naka jekk fi la fekk yalla mu indi mbon indi bax xawma ndax moko indem de waye man gisuma mbon gisuma bax yalla la gis su fekke ne ay bon acca su fekke yalla ay baxit acca waye serigne bi nak dañ la doon ubil rek waaw fàtte woon naa sëriñ bi dañ la doon ubbi rek xam nga li waral lii mooy tànt yu mel nii il faut ñu ubbil la parce que générateur bi dama bokk ci sookul bi koy taal moo tax il faut yu mel nii di am ndax nga commencé xam nga xam nga xam nga nan lañ koy waxee apprenti moom soo duggee ci kaar bi rek apprenti bi ni mu mel rek ci ngay xam ni chauffeur bee ko ko jàngal man apprenti bi laa kon nag bu chauffeur bi jëlee tey nu muy mel tey bu kenn ñibbi am na beneen affaire it bu war a xew mooy Chérif Hamza dafay teew moom laa waroon a njëkkee mais fii laa koy waxee euh, dama ànd ak moom Maroc dama ànd ak moom parce que maa ngi xamanteek moom ci zaw euh, zawiya Sidi Ahmed Tijani laa xamanteeg moom ma ànd ak moom Maroc mu teral ma teranga bu rëy nag laa wax teranga boo xalaat ci teranga teral na ma ko tey nag bu sëriñ bi jëlee di ko laajal àddiya képp ku yàllaa ma ko won képp ku ci joxe waxuma tuuti de lu bari billaay wallaay yalla dina la teral te say sa aajo dina faju serign bi ban géey yalna na yàlla wéral la yewit yalla na yalla faj la ba nga wér kilifa yi nga xamni ño nek nekk Foundiougne yépp na yalla yëkkati leen président isa Ba sa liggéey rafet na ci département bi yàlla na yalla la yàlla na taxawu la Cheikh Ibrahima fay liggéey bi rafet na nurul Basar bu funjun, ay jambar dëgg lañ ay jambar deug lañ dinañ yegg fu sori ñomit it bu ñu teggiwul seen tank ci li soxna Aida yow ñu ngi lay gërëm may joxe ben information rek ci li tax imam ñewul xamna ni daf ma baqawulo mom Oustaz ma li yeb def pour ma wacc parce que xamna ni wax ji du ko arrangé parce que yenn yi munu ko bu bugg mu may wàccloo yenn saa bu ma damay wacc Euh, imaam Cheikh yàlla dafa def dafa waroon a ñëw jiite seek ñun juma mu sàkku pour ñu toxal date bi waaye yàlla def na ñun mënuñu koo toxal parce que Foundiougne bëri na programme yàlla def euh, képp koo xam ne imaam nga rek nekk Medina Baye nekkoo fa ci bisu démb bi ñii ñu ngi Singapour kii yóbbu nañ ko dafa xaw a tawat kenen kenen nonu khalifa bi joge Medina andak wa Medina yep ak doomu baye ñes yep ña gambi imam mom rek mo fa def comme salawatul khams yep mo koy jité lolu moko wayé waaye dana ñew dé 50000 mille yi ñu ma jox ni ma duggal sama poche dama koy téye ak enveloppe bi bam ñew ma joxé ko ko noonu parce que yobante akala duma ko yobbu te suma wowe duma ko jox maa ngi koy xaar fii ba mu ñëw te man xam naa ni dina ñëw te jumaa ji dina ci jiite parce que wax na ko te yéeneem la te mu koy regretté ba bi may yegsi ci yoon wi mu ngi koy regretté Chérif Hamza ñu ngi lay nuyu bu baax macha allah wax dëgg yàlla fa tabaarakallaahu yoon wi sori na metti na euh, dinaa ci taxawaat tuuti sang dëgg la ki ngeen gis sang dëgg la xam nga nit boo demee ba fekk ko fi mu dëkk ci ngay xam dayoom fii fa mu dëkk sax lañ ko gën a respecté ak fii di sëtu Seydina Cheikh aqan bu ñëpp ràññee ngir ñëpp ràññee laa wax nag ñu ngi sant yàlla bu baax waaw ngi sant yàlla bu baax di wax ne maa ngi invité ñëpp Kaarang parce que xalifa bi dafa war a romb Kaarang pour dem Kaolack su fekkee dafa romb dimanche du ma romb waaw damay tëdd mu jaar sama kaw ndax alxamis bi paase sama liggéey mayuma ma jóge fii dem dem kaarang waaye mbooloo mi tertu nañ ko bu baax a baax waaye xam naa ni du ñaan yàlla ma nekk fa parce que du gaaw a ñibbi kaw la kon bu ma fi fii Kaarang ne tok di ko xaar di ko xaar ba dimanche minuit ma doga a ñibbi Dakar alaykum wa rahmatullah dafa nekk koo xam ne euh, Cheikh Ahmed Tidiane si euh, moo ne moo nekk maamam kon kooku ñu ngi koy dalal te di ko wax ne dalal ci sa dëkk te mooy Foundiougne waaye itam di jël suñu nuyu di ko joxe wala itam di nuyu ka nga xam ne mooy monsieur le maire de Foundiougne mooy euh, Thiémakho Ndiaye ak ganam yi nga xam ne jóge nañu fu ne itam bokk na ci meeru Karang ak meer dalal te itam di leen jox seen wàccuwaay waaye itam di nuyu ki nga xam ne mooy Cheikh euh, Issa Ba mu présenté fii euh, Ansaaru kon di nuyu ñi nga xam ne itam ñooy euh, muqaddam yeeg imaam yee kilifa diine yi kilifa aada yi waaye itam bépp délégation boo xam ne teew na ci bés bi ñu ngi leen ay ziyaare te di leen nuyu. Eh, du ñu mun a motal waaye ziyaare nañ ñëpp dalal nañu ñëpp te itam di ñaan bés bi nga xam ne bés bu rëy la ci bés yi eh, ñu yàgg di ko bëgg muy am fii ci dëkk bi. yal na nekk bés boo xam ne lépp luñ fi ñaan rek yal na nekk ngeneel waaye yal na nekk yokkute ci dëkk bi waaye yal na nekk yokkute ci biir fu Foundiougne kon ñu ngi ziaré ñëpp di balu ak ñëpp di wax ne assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu آ آ